Ama am adversaire de taille koo xam ni mën a bërëm kenn du ko natable muy Papa Sow le 17 février Ama est-ce que conscient na ci combat bi mu jël. waaw bu baax a baax a baax maa si bu baax a baax maa ngi si entraînement yi tamit mu nekk adversaire bu ma respecté mu tamit nekk adversaire boo xam ne dama ko naw si jikkoom kon lépp loo xam ne làmb laaj na ko rek ñoo si. mais Ama ku ne xam ne daje écurie bu mel ni écurie Fass du yomb ndax dañu écrit bu yàgg mën bés di écrit bu xam bés te ñu gis ni Ama souvent mbër bu xaw a bu xawee tolloo ak moom taxawaay léeg-léeg bëri bi mën na mën na compliqué ci moom. non loolu lu si am sax parce que tamit waa Fass dëgg la équipe bu mag lañ waaye tamit ba mu mettee dañoo woo sam mu ñëw tàggataat équipe équipe bi kon nañ si sant yàlla bu baax a xam ne yàgg nañoo kii tamit am plus tam ñu si làmb lañ juddoo ba mu juddoo xàmmee ba léegi si làmb laa nekk. kon benn bis waruma jaaxal day fekk dañu war a respecter adversaire bu baax te ñooñu si tànk yooyu. kon arbitre sëble na guy gee ngay jël guy gee ngay jël amaat doon nañ guy gee ngay jël làmb ji yàqu na làmb ji yàqu na guy gi bi muy jël la ko bi muy guy waaw waaw règlement bi waxul loolu règlement bi waxul loolu règlement bi xamul jàkk. amaa jóge ci guy gi ak na mu demee. jóge ci calaf yàlla def mu jël ko tey ku ne xam ne ni am na ci yeneen yoo bëggoon yoon maanaam sa sa objectif di woon bëre ak Papa Sow am na ñeneen yoo visé woon waaw ba may dugg si làmb nag dama opté woon bëre Papa bu baax a baax waaye xëy na làmb moo kii woon tamit moom staff staff yi wax loo ma loolu na ma nii carrément dama sa yoon nii la waaye ba may dugg si làmb moom franchement dama bëggoon bëre Papa Sow mais avant lii coow nañ fi diggante Ama Baldé waaw léegi coow nañ ko fi bari ba ci diggante Amath ak Lac de Guiers. waaw yooyu yëpp amoon na yooyu man maa taxoon si télé bi démentir ko ne bëgg mu am xëy na yàlla Papa la ma jox tamit. day nekk nga bëggoon mu am. waaw dara tamit ñoom ay mbër lañ ma nekk xale yàgg rêve bëri ak ñoom. moo tax mhm. bëri ak Lac de Guiers mais léegi day seral quoi Ama. ak dëretu Pikine bi amaa bu njëkk nga xam nga show Ama fii jàppal bàyyil jargandel yooyu mais amaa léegi dafa dafa sedd trop. non si làmb làmb moom lu ma neex mun naa ko def waaye bu doonu làmb tamit damay ñëw calme xam na toog mooy loolu waaye bu dee làmb moom mooy loolu damay dof kan fóore laay doon. damay ñëw rek lijjanti ko. non kan fóore ngay mais léegi nekkatoo band ci làmb ji ama. non non <laughs> non maay band bi nag. yaay band bi ci naka. maa koy band maa yëngal tamit. mais noo ko yëngalee te booy ndaw yi nekk fi di ko yëngal ama. yan booy. booy yaa ngi fi. yan booy yu saf yi ñan la. ñoom booy ñaa booy pikin. waaw waaw ñooñu ku nekk xam ne ku nekk sa rôle nay dutuwee. Hmm. man maa ngi si bu baax a baax te làmb bi na xam ne sama làmb la. Hmm. Ama tey euh, duggoon ci Papa soow euh, am fa victoire fan la amaa jëm. waaw daf may ibbi bunt yu bëree bëri. parce que parce ñu ma laajoon ñëpp dañ ne ma moo nekkoon frontière bi. du dox sama diggante boo demee si camp bi dañ naan la il faut mu bëree Papa Sow nga dem fee ñu ne bëree hmm, mu daan papa. waaw écrit yëpp tey Papa bu ma kii amul kenn koo xam dama lay dëkk sama loxo maay toog jàpp sama ñaambur waaw lu ma làmb jox ma xam ne loolu la. mais Ama yaakaar na génn ci combat à 100 pour cent est-ce que Ama confiant trop ci day daan Papa Sow catégorique ci loolu. non confiance su ma dafa nekk sama kanam nekkul sa Papa Sow parce que man franchement pare wu ma sa Papa maa ngi pare ñeneen ak ñeneen te yaakaar naa ñoo ñëw a sa Papa Sow. waaye li li ngay wax dafa mel day minimiser Papa ah ko. jàll mais lu ma lu ma opté ba may dugg nekk woon leneen la xëy na ñooy soox ndànk ndànk ndànk ndànk te yàlla na yàlla xeeb doole. mais daloon ci Papa Sow doon obligation parce que fi nga jógee def benn parcours bu riche. Mhm. kon donc daloon ci doon obligation la neex. non non neexuma Papa Sow mbër la. mu boo xool moo fi ëpp victoire ci làmb champion la tamit mu bëri moom plaisir la si man day am loo xam da koy yokk si man si làmb loolu dong la. kon Ama bu dajee Papa Sow ci Gris Bordeaux la jëm. mën nañ jàpp loolu non non ñëpp mën na nekk ñëpp parce que man bàyyi ma fi kenn. entre entre waa Pikine ak doomu Dubale si ñoom Baal amul kenn ku ma fi bàyyi. ak doomu Dubale ak ñoom ak waa Guédiawaye ñoom ay waa doomu Dubale am ko si bàyyi. mais la dëgër doomu Dubale la quand man ah, lañ ko mën a jàppee. waaw ah, ñooñu laa xam laa rek sama mag la ñooñu déggante téléphone. Mhm. ñooñu dégg na sama téléphone waaye man ñoom laa ñee laa gën a affecté ñoom laa gën a mun a nekkal. Hmm. mais est-ce que Ama euh, tey boo ma doon jàngatal Papa Sow techniquement bëri bi muy bëri. moom su ma la jàngatal day mel ni sax dama kaa ragal. parce que dafa xarañ. torop dafa xarañ trop kon su ma koy jàngatal day dem ba xam ne mooy loolu mun naa tëdd di xalaataat bàyyi noonu rek champion bu mag mag. lan mooy ay faiblesse am. bëri na am moom mbër muy man muy keneen ku nekk am na faiblesse. Mhm. te suñu làmb dafa métti benn sport boo xam ne dafa métti kaar après sax dañ lay dañ moo tax boo si nekkee nekk rek. amaa ñu jàpp combat bi euh, yàlla def drame am Demba Diop ku xam ne préparation làmb dafa metti ak li muy laaj naka ngeen dundee stand by boobu xaar bu yàgg boobu na ngeen ko dundee seen en tant que mbër mais na ngeen ko dundee ak seen diggante ak promoteur bi ak seen supporter waaw yàlla rek parce que tamit nit nit yàlla yàllaa mun parce que tey man mënoon naa jël avance bi dee. après Assane Ndiaye daf may comprendre moom tamit mun na am trop ma comprendre ko boo Assane Assane nekkul damay seede wala nekkul damay wóoral sax waaye Assane Ndiaye mun naa la a ñëw déggante te saa yi moom bu ma waxee damay nekk si combat bi laa si nekk parce que damay xam ne sama nattu la yàllaa ma boole moom ku nekk mun na am nattu sa àdduna moo tax boo si nekk muy promoteur yëpp ku si nekk boo ma yorelee wala ma yoreel la sax man mun naa mun naa xëy suba ma yoreel leen bu boobaa dañuy muñoon tamit loolu boo xoolee si man rek damay toog rek calme xam ni yàlla bu ko neexoon day doon léegi léegi bu ko neexoon tam day dañ koy rapporté waat. mais dégg ngeen non nañu teg promoteur bi pressing nañu dem ci beneen promoteur mu tëgg ko. moom franchement nag du nekk nekku suñu camp parce que tamit Alassane Ndiaye gënuñoo doon naw suñu nawle la ba pare dafa jël xaalisam investir si kon lu ñuy mën a def pour sauver journée bi rek dañ koy def man boog man bu fekk fekkoon laaju dara ma xam jour bu may bëre sax damay ñëw bëre moom parce que mun naa la suñu nattu la moo ñu investir suñu xaar kon ñun waruñu ko gër a gore di taatee làmb bi. mais euh, le sept ku ne xam na ni ci ngeen war a def seen première face to face ginnaaw bi ngeen ko defee euh, euh, ci présence du ministre Matar Ba bii nag nga xam ne officialisé nañu date bi le sept nga war a jàkkaarloo ak Papa Sow di bés boo xam ne Vallo moo ci war a bëre ak nga Mame Gor Dione fi nga xam mooy stade Iba Mar Diop. waaw di ñaanal Vallo tamit yàlla may ko ndam parce que doomu Pikine la parce que tamit dama yaakaar ne suñu combat ñun ñëpp dama di woo ñëpp le sept la. face à face la parce que namoon nañ namoon nañ Papa Sow namoon ku nekk tamit amoon na sa état forme comprendre kon dañuy woo sama fans ak ñëpp ak fans Papa Sow yi ak amateurs yi la set na ñëpp ñëw stade Iba Mar Diop la xam na na ñëpp ñëw ñu fee ah, ñu signature signature bi ñu joxante ay kàddu tuus xam na mu neex te ñooy ñaan yàlla lépp lu si promoteur bi séntu rek muy doomu aadama yi ñëw muy bànneex yàlla na ko yàlla defal. mais est-ce du ñëw bala set seral quoi parce que man ni may déggee Ama dafa mel ni man man beneen Ama lañ ma lañ ma jox ni quoi te Ama li gars yi di xaar waa Pikine li ñuy xaar Ama ñëw jàkkaarloog Papa Sow wane feeling bi nekkoon ci moom fugg bi fit wi mais Ama dafa mel dafa respecté Papa du trop. non yooyu loolu man naturel nii laa mel signature dama koy seral parce que tamit nit nit. ni boo ama ama kañ nga commencé seral signature tamit loolu sa signature tafatine fii la ñu fekk yàgg guy gi la ñu fekk waaw maa ngi ama a a noonu la woon suñu signature waaw mais est loolu tamit du du xaw a rey tamit aussi combat bi mooy bu njëkk ku ne xam ne ni combat coow loolu moo daan tax amateur yi sawar pour ñëw defante boobu te yéen mbëri léegi commencé ngeen raayante est que du yàq lamb non raayante man moom naturel noonu laa mel man bu may yëngal damay ñëw géwél bi tëgg ma fecc wane sama bopp sama supporter xam ni kii kii mooy mbër bi kii kii lañ kii moo jar a dagal bii waaye bu desee kàddu damay sant yàlla julli si yonante bi sant sama sëriñ wax loo xam ne moom fi indi mu jeex waaye man amateur bi ñu ma gisee ma signante nañ xam ne mbër bi jour combat bi dina ñëw lu tax ñu bëgg mbër bi dëgg dëgg dëgg dëgg nañ ko gis si mbër bi le 17 février ngeen ñëm stade euh, euh, Léopold Sédar Senghor ku ne xam ne ni du stade Como Euh, est-ce que Ama jàpp nga ni mën nga ko feesal ci côté mobilisation comme ni nga ko daan feesalee démb Diop xam ne xale dañuy toog toog ci kaw naan Ama yaa yëngal Pikine stade bi riir est-ce que mën nañu am mobilisation bu mel noonu. waaw dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla ñun gëm naa ne bu ñu yàlla bu ñu fayee suñu xol barke Serigne Touba lépp dina ñëw ñoo fees dellu parce que tamit gars yi nëmm nañu gaay yi gëj nañu ñoo gis comprendre tamit di si def mobilisation di si liggéey tamit suñu fan si club bi. ku su mel ni Dias bu AS Pikine ku su mel ni Poca ku su mel ni Mor Talla Buur Géwal xam na ku su mel ni Cheikh Nday jaw ku su mel ni Pape Sarr waa Ndaayaan ñëpp dañuy woo Pikine bi yëpp i ko taaf jéem a mobiliser parce que nekk lu yomb parce que ñun suñu sàkk promoteur bi kontaan si ñun pour man pour man promoteur bi respect ñu respectante il faut moo man ko sama bopp damaa ñaan yàlla yàlla na yàlla xeeb doole yàlla bu ñu rus mu promoteur bañ a rus ma bañ a rus. Modou Lo di bëre janvier Ama février Modou bu ci génnee Ama génn ci est-ce leer. ndax moo loolu mooy mébétu amaa loolu moo ne sa fii. non dégg nga man maa nekk mbër boo xam ni man lu nekk laay wax du ma na ne kii damay liggéey wala kii su ma waxul kii daf may liggéey comprendre na maa ngi si en tout cas daal sama sama jàpp sama ñaambur. mais si objectif Modou la Ama. sama lépp mooy roi des arènes. Hmm.